conférence de presse bi yëpp pour euh, euh avertir sénégalais yi ne ñi toog di xaar ay pétrole ko gis tey jii mi ngi taxaw su pétrole ñëwee am naa projet nangam su lii ñëwee dinaa def nangam et cetera mais dañu xamul ne pétrole boobu nga xam ne nar na egsi tey jii dafa am yoo xam ne ay réew yoo xam ne yu mel ni Ghana yu mel ni Libéria yu mel ni Tanzanie yoo xam ne ni ñun mel nañu meloon ba seen petrole ba ñu ko feeñalee bi ñuy laata commencé seen production bi seen administration yi seen chef d'état yi seen président yi dañu dem bitim réew lépp fa xaalis bu bari xaalis boobu ba mu ñëwee dañu dañu dañu presque jël lépp loo xam ne waroon nañ ko am ci pétrole boobu di ko fayee seen bor dañu jël lépp loo xam ne feeñoon na ci xaalis boo xam ne pétrole boobu amoon na ko ñu jël di ko fayee seen pétrole loolu moo waral tey jii Ghana cedi moo doon seen monnaie ñoom cedi yoruñu CFA cedi la ñu yor monnaie boobu dafa daanu ba fi mu nekk moo mujj ci xaalis yi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi loolu lan moo ko waral banque mondiale dafa ne incompétence su gouvernement moo waral loolu mais ñun loolu moo ñu nar a dal parce que tey jii gisuñu benn structure gisuñu benn jéego boo xam ne président def na ko bu ñuy won ne suñu pétrole boobu su ñëwee xaalis bi dina ko mun a gérer xanaa nag du ñu toog di croiser les bras te moom 2024 lay jeexal te fii ak 2024 leb na fi leb boo xam ne teg na Sénégal ci bor. yoo xam ne Senghor Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade la ñu leboon moom multiplier ko na ko par vingt loolu nag soo gisee mooy lan c'est très simple parce que président dem na lebi xaalis bu bor bor yu bëri ba teg Sénégal ci mbagg boo xam ne suñuy sët seeni sët seen sët sëtaat dinañ toog di fay boru Macky Sall lépp parce que dafa bëgg a def ay réalisation ñu ne le président Macky liggéey liggéeykat la nañ ko fi bàyyi jox ko chance troisième mandat troisième mandat nag mënu fi am waaw mënu ci am parce que moom ci boppam moo ko njëkk a bañ moom moo njëkk a wax ne troisième mandat dootul am Sénégal ñu toog xeex ak Ablaye Wade xeex ak administration Ablaye Wade xeex ak régime Ablaye Wade suñu xeex yëpp ak Abdoulaye Wade lan la woon mooy que troisième mandat dootul am Sénégal mu ñëw dëggal ko wax ko en deux mille dix neuf deux mille dix sept discours bu mu def li muy wax mooy sole ma falee mooy suma dernier mandat mais lan moo ko jàpp lan moo ko transformé ci diggante bi ba mun a war a wiiri waat jàkkaarloog sénégalais ne leen maa waxoon waxet maa waxoon waxet nag dootu fi am ci Ablaye wat wone nañ ko ne amu fi ci Ablaye wat sàkkantuma la ak doomam Macky Sall dinañ ko duñ ko ko may ñun programme bi nga xam ne moom la ñu bëgg a jox sénégalais yi fa muy njëkkee mooy programme agriculture agriculture soo demee États-Unis nga dem Europe réew yi nga xam ne yépp tey jii am nañu développement agriculture moo leen ko may agriculture nag nu mu leen ko mayee mooy dañu jël seen agricole yi seen béykat yi dañu jël encadré leen jox leen lépp loo xam ne soxla woon nañ ko ci ñoo ñu produit dafa meññ ba xaalis bi ñu ci amoon dañu créer ay banque agricole banque agricole ñoo njëkk États-Unis banque agricole yooyu la assureurs yi ñëw jël ci xaalis ci la immobilier yi ñëw jël ci xaalis immobilier yi di ci tabax ay ay ay euh, ay gratte-ciel ay étages waaye ñun suñu président yi lan la ñu def fi nga xam ne ñooñu réew yu réew yu développé yi fa nga xam ne foofu la ñu mujj ñun foofu la ñuy tàmbalee dañuy defar ay terre dañuy defar ay BRT parce que France am na terre am na BRT États-Unis am na teer am na BRT mais bi ñu laata am terre ak BRT seen baykat yi produire nañ loo xam ne tey jii amatuñu problème mais Sénégal tey jii xoolal ni Sénégal méttee xoolal li Sénégalais yi di dund nga bëgg a jël mille milliards def ko ci benn tiitarukaay man tiitarukaay laa ko gisee tey jii day servir day servir euh, euh, ay ay combien une population ñi muy servir c'est moins de six cent mille six cent mille Sénégalais ci dix-sept millions de sénégal ana waa àll yi ana lañ lañu ñu defal waa àll yi mus ngaa gis ne mun nañu yëkkati mille milliards ne dañ koy séddalee ci ci ci àll bi musuma kaa gis semence yi leen di jox baaxul la preuve résultat yi mooy amuñu euh, saison bu baax saison agricole bi baaxul loolu lan moo ko waral semence bu baaxul ñu tax defuñu ay programme ndox Sénégal am na dex boo xam ne moo gën a rëy dexu Arizona bi te soo demee Arizona dex boobu la ñu jël def ci mbéy moo xam ne fruit bu neex boo lekk États-Unis Arizona la jóge te suñu dex moo ko gën a neex gën ko set nga dem Israël pour moins de quatre-vingt mille hectares def nañu ba nga xam ne israélien du importer dara loo xam ne moom la Israël di lekk nga toppee ko noonu ci réew yu bëri jël nañu seen dex jël seen suuf arrosé ko def fa irrigation ñun lan mooy suñu potentiel potentielu Sénégal un million cinq cent mille hectares la six cent mille hectares rek suñ ko yoroon irrigué ko jël baykat yi def jël ci xale yi yóbbu leen fa jox leen xaalis bu doy tamit ba seen xel dal dugal leen ci bay bi bay bi produire ñu amaat ci xaalis bu doy mais xale yëpp ñooy dem ci bay bi ndax day indi xaalis xale yi taxawaalu rek la ñu bañ donc je pense que yooyu yëpp su amee ñun suñu président yi nekk fii di def ay BRT di ci tiitaru di def ay TER di ci tiitaru Sénégalais yi war nañ ko taxawal ne ko président jeex na deux mille vingt quatre na nga tàggoo orowaar li nga jota def ñu ngi la ciy sant li ci des na nga bàyyi ko ci loxo sénégalais yoo xam ne suñ ñëwee dinañ ko def